ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay bu baax. Uh-huh. naka la. tur bi Iba Diop la. Iba nga nekk grand frère ci Mouhamed mi nga xamante ni moom moo fi daal di bàyyeekoo nga yoroon li nga xam ne moo di autopsie beeg yooyu ndax mën nga ñu wax ci kayitu autopsie bi lan la génne ak yi nga xam ne moo xewoon ci hôpital bi. waaw li xewoon si hôpital mooy daanaka affaire torture la rek. jël nañ xale bi dóor nañ ko dóor ba daanaka biñ koy yóbbu hôpital sax presque dee na la ñuy wax rek. bi ñu ñëwaatee ñu def li ñu war a def kay autopsie bi génn. bi autopsie bi génne tamit wanewul lu dul ay yax yu dammook ay faar yu damm ay mbaggu yu damm yooyu dong moom lañ fi wane. te bu ñu wanee loolu tamit kuy autopsie dafa doon lu leer loo xamante ne ñun mënuñu si dara mënuñu si dara. waaw reyal nañ ñu nag suñu rakk koo xam ne amaloon nañ ñu njëriñ njëriñ la ñu amaloon ndax daanaka suñu lu bëri moo ko yoroon ndax mu ngi liggéey. mu ngi def lu mu war a def ñun fu mu war a jaar ak ñun mu ngi jaar ak ñun foofu autopsie nag lu mu génnee dafa doy waar lool lool lool lool sax dama doon sax ragal a wane affaire autopsie boobu faar yu damm bëri ay fracture autopsie bi li mu ngi nii léegi léegi dinaa la ko jox nga xool ko ndax loolu ku ko xool xam ni carrément te dañ leen tooñ ba ci kanamu yàlla li leen toojee fekk naa la si biir néeg yaa ñu lay takkal bu ñu amee si soupçon nañ ñëw def li ñu war a def te bu ñuy dugg si kër war nañ am mandat bi ñu dugg amuñu mandat amuñu dara lu mënoo dugg kër jàmb rek yuuxu saaga dóor li nga bëgg amoo ko nga ni dañ may jox lii nga saaga nit mu fayu nga ni da ngaa réew nga yëpp ko dem si oto dem yóbbu ko. mais lan mooy firndeel kenn ne ay homme de la ndax dañu présenté carte wala dañu solonto ni wala nu mu euh, ak lu ñu ma ñàkk présenté carte. man bi ma ñëwee waruñu ma carte ndax dama ñëw fekk ñu jël booy yi ba yóbbu leen bi ñuy génnee booy yi man ci laa yem dégg ak menaces yi ñu leen doon def ak saaga yeeg dinañ leen yóbbu loolu man dégg naa ko ci man bañ leen yóbboo nag bañ demee police nag man xam naa ñoo xam ne ay policier lañ loolu man xam naa ko ci te gis naa ko ci te ñeneen ñoo xam ne am ñeneen ñoo xam ne ñoom it duñ ay policier am na si ay ASP ñoom ñëpp xam nañ seen tur mën nañoo tudd seen tur benn par benn ndax xam nañ seen tur ñoom ñëpp waaw moom bi nga xamee ne ne gis nga ko moom euh, maanaam yaramam lan fa la am ay gaañu gaañu. man avant autopsie am biñ koy njëkk a évacuer di ko yóbbu dalal jàmm man ma nekkandoo ñoom ak ci biir li ma nekkandoo ak ñoom ak ci biir yëpp di ko yóbbu man kii laa gis si moom. lu ma gis si moom daal man gis naa ne yaram bi tëccu na loxo bi neewi na man xam yaram bi yëpp toj na xam naa ne kii dafa damm loolu xam naa ko ci moom mais biñ demee nag autopsie bi nag moom moo leeral yenn yi. waaw mais lan moo waral coow li ndax gis nañu ba ci jouru dëj bi ay lacrymogène ak yeneen yeneen di ci xew. xam nga policiers yi dañ ñoo tooñ bëgguñu tooñaat ñaari yoon mu xamee nag moom mu xameetu nit ñi la mu xameetu nit ñi la ndax mu xamee moom moo ji nit ñi teraanga c'est ku ne teraanga bi nga xamee ne loolu am na ñu am lu leen metti lool yoon war a def liggéeyam yoon defatul liggéeyam ñëw ba si biir dëj bi di fi dóoraat ay lacrymogène loolu teguñu ko fenn loolu teguñu ko fenn. gis nga nii ñëw ba si dëj di fa dóor ay lacrymogène di jàmmarloo xale yi xale yi il ñu ñu fayu ñoom tamit lii dañoo am lu leen metti ndax ku leen amal njariñ lañ def te yaakaar naa nag dañoo nekk si nguur gu bees nguur gu bees gi nag war na mën a def liggéeyam lii war na si mën a taxaw te yaakaar naa bii mooy seen première kaa war nañ see mën a taxaw ndax lii lañ doon séntu si ñoom ndax lii lañ doon xeex ba ñu jox leen nguur gi kon kat nañu def seen liggéey. lan nga ñu mën a jox ay kàddu seede ci Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi daal di mu Mouhamed dafa di nit ku baax mu Mouhamed bëggul ku mer bëggul ku ñàq man magam laa ñoo bokk ndey ak baay dama yor jabar yor yu doom Mouhamed dafa ma teggil sama lépp lépp la ma Mouhamed teggil ki taxawoon léegi wéeru ma nii sama doom la mu Mouhamed moo leen yor moo leen di defar lu nekk moo leen koy defar su ma leen jox sax dafa ma naan bàyyi leen koor gii mooy joxe ndogu mooy joxe xëdd mooy joxe lu ñu togg ba fee mu jaral ko bëgg joxe moo ko jaral mu dem sa daaru fee problème bi amee di fa segg ndogu di joxe xoolul kenn ko ko jox dërëm wala ñaar dërëm lu mu yar si ay xaram di jaay di yar ay ginaaram di jaay lu mu am mu ngi koy bokk ak nit ñi di ko bokk ak ñun ñi waaw. mais naka la demee fi ngeen ko yóbbu fan nañ ko yóbbu hôpital ndax moom ci yoon bi la ñàkkee ba kanam ci hôpital bi la ñàkkee ba kanam ndax biñ ko yóbbu hôpital moom waxul deful dara biñ koy yóbbu hôpital ba ni mu gaañoo amul benn lenn lu mu wax waaw niñ ko yóbbu hôpital ba ñuy wax waxul dara waaw. waaw. d'accord comme fi mu nekk nii yaakaar naa ne fi mbir mi mu ngi gën a metti dañu lay jaajëfal rek di la jaale di la ma saw ñu ngi leen jafal bu baax a baax. yaay maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Seynabou na Seynabou lan nga ci Mouhamed mi nga xam ne moom moo fi dal di bàyyeekoo. yaayam la parce que maa ngi yaayam. ñu bokk ndey ak baay sama rakk la. waaw Ahmed sama doom la. gannaaw ba ñu la jaalee tiis bi nga xam ne moo daal di dal ci seen kaw di la ma saw bu baax a baax yan bi sedd rek nga ñu mën a jox tey ci sa doom ji nga xam ne moom moo fi daal jóge Ahmed dafa doonoon doom ju baax wax dëgg yàlla ak yonente bi gëm boppam bëgg liggéey xoolul alalu kenn waaye dañ ma woo ma nekk kër Mbay Fall ñu ne ma yaay Ahmed dañ ko jàpp ma ne ko lan la def mu ne deful dara de dañ leen fekk foofu rek bi ñuy ndogu policiers yi ñëw dugg fekk leen fa jàpp leen di leen dóor di leen palper fekk ñu ci ñoom dara di leen dóor ah ma ne ko loolu du yoon ma toogaat ba ci kanam ñu ne ma yóbbu nañ leen ma ne ko fu leen yóbbu mu ne nee na dañ leen yóbbu police ba delloowaat leen ma ne ko déedéet ma toog a toog toog ba min wi jot sama doom bu jigéen bi woo ma ne ma ah yaay yóbbu nañ leen teg technopole de. waaye di leen a dóor a dóor a dóor ba Ameth daal mu ngi ci diggante dund ak dee wallaahi nee na noonu ñu jël ko yóbbu ko hôpital bu ñu dem nag duñ ko jël hôpital bu ñu dem duñ ko ñu mujjee nag dem principal bi ñu demee lañ ko dugal bi ñu dugalee Ameth ñun bu ñu buggee dem gis Ameth sax ñu bañ ñu ne duñu dugg pour gis ko mu metti lool nag waaw ñu naqar lu ko torop nag wax dëgg yàlla ak yonente bi waaw mu doonoon soutien de famille yor ay rakam yor ay magam man mii di wax ak yow mu yor ma lu ma soxla suba ba ngoon mu defal ma ko moom Ameth bu yàggul rek laa ñëw na ko amet sama téléphone bi laa bëgg nga changé ma mun ne ma yaay dinaa la ko changé bu bees laa lay wutal maag yaay mi ñoo bokk ndey baay waaye daf ma def comme yaay wax dëgg yàlla yonente bi métti lu naa ko torop nag. ndax yaay ci nga xamante ne ni jot nañ la ko expliqué ndax Ameth dafa amoon problème ak ñooñu wala. wax dëgg yàlla amul woon problème ak ñooñu wax dëgg yàlla xanaa nag dañ koo soupçonné rek waaye amul woon problème wax dëgg yàlla ak yonente bi jàmm rek lañ xam xamleel segg kafeem toog ñu fekk ko fa def ko liñ ko def dóor ko ba mu dee metti na nag ba ci kanamu yàlla waaye nag lépp dañ koy teg ci loxo yàlla léegi nag ñuy ñaan nag président bi mu def liggéeyam parce que lii dafa metti lii dafa war a jeex ci dëkk bi parce que du moom rek lañ ko def am na ñeneen ak ñeneen ñu ko def technopole am na ñoo xam ne gisuñu leen am na ñoo xam ne gisuñu leen léegi nag ñun dañuy ñaan dimbal waa ñu jàppale ñu te yàlla tax président def liggéeyam su deful liggéeyam tamit ah suñu njaboot gi tam dañ def seen liggéey. def seen liggéey ci naka. waaw foo ñu def seen liggéey. ndax duñ leen bàyyi noonu. di dox di leen xool nii di leen gis ñuy dem seen yoon ah déedéet mënuñu ko waaw dañuy ñaan nag. président de la république bi mu def liggéeyam. ndax da ngeen a xam ñan ñoo ko def wala da ngeen a am njott ci ñi ko def. am na xale yi am na ñu bari xam nañ leen. Ah, ci ko def waaw ci ñi ko def man xaw leen waaye xale yu góor yi am na ñu bari xam nañ leen. Mm-hmm. wax dëgg yàlla yéen am na ñu bari xam nañ leen. waaw mu metti lool nag. waaw lii daal moo nekkoon sama wax. ndax bi ñu euh, dooree ba bi nga xamante ni sa doom daal dinay génn àdduna ndax jot nga ko gis walla déedéet wax dëgg yàlla jotuma koo gis nee naa la suñ demee hôpital ñu ne kenn du dugg ñun ñëpp dañuy dellu siwaat wax de ndax loolu neex na ci neexul ci xol boobu ba tey sa doom tëdd hôpital mardi ba ni mu gaañoo tegoo ko bët ndax loolu neex na ci xol ah metti na trop nag. ban yég yëg nga am bi ñu la nee sa doom tëdd na hôpital ba ni ñu la nee sa doom daal dinay génn àdduna toog gisoo ko tàggatoo ak moom sax tàggatoo gu mujj. defuma ko dañu maa wax bi ñu ma nee rek sa doom noppalu na man de wax dëgg yàlla nit ñëpp ma fekk sama kaw falaa daanu waa kër gi yëpp ñëw ba ci koñ bi ñëpp ñëw fekk ma sama biir kër waa ci laa jógee nag sol sama yére ànd ak samay doom ne la ñëw leen ñu dem parce que dëkkuma fi maa ngi dëkk kër Mbay fal ma ànd ak sama njaboot ñu ñëw fii. waaw ki doon wax fii léegi kooku sama doom la ku góor ki waaw kooku sama doom la waaw. lu bari marqué na ma ci moom Ameth lu bari marqué na ma ci moom wax dëgg yàlla yonente bi ndax bu ma duggaan fii rek fa mu nekk laay dem Ameth nangam Ameth nangam mu laax waxtu mu yëkkati jox ma kon loolu rek daf ma marqué marké na ma torop munu ma nag wax yàlla xam na ko mënu ma wax. kon daal mën nañu ne sa doom ji tey daal dina lay wéetal bu baax a baax. dina ma wéetal ndax saa yi bu ma duggee Pikine dem këram fekk ko fa fi muy fréquenté fa laay dem fekk ko fa mu toog ndeysaan bu ma egsee mu yëkkati la mu am ne ma yaay am demal nga ñibbi ma dem ñibbi kon manqué na ma torop dëgg yàlla ak yonent bi waaw ma la waxoon léegi rek moom laa lay waxaat na yoon def liggéeyam na yoon def liggéeyam nii rek mooy solution bi. jërëjëf yaa booy ñu ngi lay jaale bu baax a baax di bokk ak yow tiis bi. jërëjëf